Dans ce monde, il y a ceux-là qui manquent de quoi se nourrir. Il y a aussi ceux-là qui manquent de toit. Et encore plus loin, il y a ceux qui ne peuvent accéder à la bonne éducation et encore moins aux soins de santé. Pour donner espoir à tout cela, il y a aujourd'hui la Senegindia Foundation, salaam di am mbégte ak kontante di dellu seen ak si seen euh, émission yoor di profito de cette occasion de la nouvelle année pour vous souhaiter une très belle et joyeuse année 2023 euh, di ñaan yàlla mi nga xam ne moo am ay pexe euh, mu ay pexe yu baax ñu gën ci yéen ñëpp ku ci nekk mu defaral la li nga bëgg tey nag comme vous l'aurez remarqué dañu délocaliser dañu génn de Dakar on est sorti on est allé vers le sud plus précisément vers Casamance-la-Verte, dans la région de Ziguinchor, où nous nous sommes intéressés au cas de la personne handicapée à Ziguinchor. Plus précisément, le cas d'un jeune Bignan Ligouar, euh, mom son cas nous a révoltés. Il nous a révoltés dans le sens où euh, Ligouar a fait Djang. am licence, mais euh, il n'a eu d'autre perspective que de se trouver dans les rues de Ziguinchor pour faire la manche. ah ñu ne loolu on va essayer de comprendre le processus qui l'a amené vers cette solution là et puis comprendre comment se fait-il que les autorités ñu mën a seetaan lu ni mel li bois mooy suñu émission tey Ziguinchor li bois yërndu jeune waaw ah, naka mu. sant yàlla bu baax. ça va. ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. fii nga nekk nii. non non non dëkkee fii. ah dëkkeewoo fii. maa ngi dëkkee Kande. fan nag. Kande Kande Kande. d' accord def lépp ci place bi nii. bon je waxal wolof rek. dama ñëw ñaan di ñaan day ñëw yelwaan. d' accord xanaa assumé woo ko. bon pas tellement. lan moo la jot nii déjà. Euh, accident auto laa def. accident auto. dans quelles circonstances. bon dañ ma yëndi woon dañu dama yëndi woon sama mag. waaw yëndi këriñ. ma topp fan noonu fan noonu. c'était à Dakar. à Dakar nga accidenté. da nga mës a nekk Dakar. waaw nekk naa foofu de 2000 à 2012. 2000 à 2012. d' accord mais sa origine fii la quoi. waaw fii laa jógee dem vacances foofu noonu malheureusement pour man maa mu ok oto daf la ñëw fekk la mbi la. waaw dama doon jéggi bon mun naa ne presque jot naa motal parce que yéegal naa sama beneen tànk pour yegg si beneen tànk bi oto bi yegg si. boobu ñaata âge nga bon mun mën a exactement mais maa ngi soogoon dugg école soogoon def CI. CI nga doon def. waaw ok boobu monsieur yaa ngi woon say kër parents wala. Euh, maa ngi yoon sama kër euh, nu ma tudd mag rakk papa. rakk papa waaw si moom laa demoon vacances. et foofu lañ la amputé. waaw. kon fii daal yaa ngi toog di màjjal mais màjjal boo xam ne assumé woo ko quoi. waaw mais nga bañ ko def lu tax nga koy def. non peut-être yenn saa yi nga di nga def dara mais du sa doon sa sago. booy yi dina am ay circonstances yu naan def toujours sago nit ki la. toujours am na beneen solution quoi. peut-être xëj na day metti mais y a toujours une solution. waaw solution moom mënul ñàkk moom. lii protège la nii. waaw protège la moom ngay sol léegi boo ko boo ko kiiwul nii doo mën a taxaw. bon difficilement. par exemple son bu fekkee ni genéew la. mais ah d'accord. mais est-ce que mais doo ko sol benn yoon ñu doxantu rek. pour ne ah. pas voilà comme xam naa ni. waa nga ne donc euh, yow assumé woo assumé woo yelwaan bi non non franchement parler assumé wu ah mais booy lu tax nga koy def. noonu la ko waxee assumé ma ko parce que bon xam naa ni du lu nga xam ne par exemple sama yaay bëgg na ko wala sama parents si boppam en général bëgg nañ ko. image bu ñuy am si yow wala ñeneen ñi lu ñuy am image si yow. mais nga bañ ko def. waaw loolu tamit am na. am nga parcours par exemple. parcours comme si wàllum jàng. métier wala jàng wala affaire yi. jàng jàng naa. ah jàng nga. waaw jàng naa. d'accord jàng ba fan par euh, exemple. jàng naa ba université. ah dem jàng nga ba université. waaw je suis titulaire. am naa samba depuis 2015. je suis allé à l'université Assane Seck de Ziguinchor. waaw ban parcours nga def université. à l'université j'ai été jusqu'à la licence. dem nga ba licence. waaw validé nga licence bi nga toog ci mbeddu Ziguinchor bi di yelwa ban impact le handicap bi nga bi la yàlla nattoo. Mhm. di jouer si yow. bon franchement parler handicap bi daal doon na lu nga xam c'est pas facile à assumer surtout nga teel ko am. mais moo am c'est pas facile psychologiquement si tu n'es pas fort. ñaata at nga am. en ce moment j'ai 28 ans. tu as 28 ans. waaw donc yow traumatisme la ci yow quoi. traumatisme la c'est quelque chose comme mën naa ne pour être franc maanaam mënuma ko nangu quoi. ah waaw mais boo ko mënul nangu it. ba boo ko mënul nangu dina sotti waay sa waay. bon mënuma ko nangu peut-être parce que bon. des fois ma gis samay morom def yenn ni wala moom am def yenn ni te mënuma ko. waaw ah. donc psychologiquement ça me travaille. d'accord est-ce que yow tu aurais tu penses pas que tu aurais besoin d'une aide psychologique pour assumer lu bëri ci dafa mel ni sans faire de la psychologie à deux balles. tu as une licence. en langue étrangère en langue étrangère. mën nga ko prouver. je je le prouver. ngi fii nii génneel ma comme tu vois yii c'est mes ah lii de buñ ko buñ ko trafiqué wu attestation de diplôme la le chef du service administratif de l'unité déclaré digne du diplôme de licence en langue étrangère. macha allah macha allah mais qu'est-ce que tu as cherché à faire parce que mun loo am na licence rek ba pare di di perspective mu doon yelwaan rek quoi est-ce que mës nga def jéem a def dara. bon. à part lui, bon, j'ai eu à faire à travailler au niveau du tribunal départemental de Ziguinchor. Comme quoi Pendant six mois. J'ai saisi les certificats de nationalité. Ouais. dama leen doon saisir euh, certificat de nationalité. d' accord euh, greffier en bi nekkoon foofu. ñu euh, koy ne maître Karim Diouf. waaw moo ma jëloon foofu noonu. Uh-huh. ma ko doon saisir ay certificat de nationalité. d' accord mais qu' est ce qui s' passé lu tax continué wu loo fa. par la suite après dama tombé woon tamit mën na doon dem euh, suñu village comme ni ma la ko waxee woon pour. c'est-à-dire suñu lël bi. Mhm. bon j'avais j'étais obligé ma abandonné poste bi. lël bi keneen jël ko. lël bi bu ma dellu si mu ne bi mooy lan expliquez-le pour moi. lël c'est le bois sacré chez nous Joola parce que Joola la. d'accord ok mais yan mooy perspective bi nga xam ni tey yaa ngi koy euh, jégleel sa bopp est-ce que am nga ay bon. j'essaie par rapport ak nu may toogee fii yëpp j'essaie quand même de déposer dans un certain nombre euh, d'endroits quand même pour essayer de trouver quelque chose à faire. Mmh. par exemple euh, bon Areski ak CSE. Euh, d'accord mais est-ce que est-ce que enseignement bi par exemple man dama dégg ni souvent il y a une carence d'enseignants ici au Sénégal. Ouais. Et je ne sais pas ndax say velléité la sa ambition mën na ko rejoindre est-ce que ça te dirait pas de délivrer un enseignement quelconque Bien et pour sûr. cela te former. Bien sûr. Mais pourquoi tu n'essayes pas de faire ce qu'il faut Pourtant, cette année, année bii nii incha allah bëgg naa tenter concours crème bi kenn xamul bëgg naa ko tenter bon tenter sama chance. concours. crème crème. voilà mooy. c'est pour l'enseignement. bi ngay dem Dakar souvent. non depuis 2012 ma dellu si fii <laughs> delluwuma foofu. ok si d'aventure il avait des opportunités solution qui était proposée venir Dakar di nga ko mën a. bien bien sûr man moom wax dëgg yàlla aw ma fu mee bañ. man l' essentiel am ndaa si lu ma jàpp. Mhm. a fu mu nekk. Mhm. l' essentiel naa am fu ma jàpp. Ah. weer bu dee ma am lu may jot. mën a fekk samay soxla dignement comme tout le monde. travail dignement gagner ma vie dignement. léegi li bon mhm. léegi yow est-ce que c'est pas parce que ni ay solution de facilité ngay jël ñaata nga am par exemple journée Madial bi. non non man je sais grand chose ah. man na am lu may añee. non ñaata ngay am par exemple. bon 2000 francs 2500. en journée bi di nga am 2000 francs quand même. nga nekk dafa xaw a confidentiel wala da ngay làqatuwaale. waaw comme ni ma la ko waxee bon c'est un peu l'image est un peu mal vue par certaines personnes. surtout yenn saa yi nga daje ak ay nit nga xam ne euh, dañ la xam. Mhm. am sa wala ngeen boko koñ. Mhm. ñoo gis si yenn conditions yi. mais la woon liggéey ay manœuvres ak yooyu. manœuvre comme mag. je ne sais pas yenn ak yooyu. non sa franchement parler su ma ko mënoon def ko. su ko mënoon def ko de franchement parler bon. d' accord mbaalu deux mille deux mille sama condition peut être moo ma m tamit. nga def loolu deux mille deux mille cinq cent yooyu mais du tous les jours nga fi ñëw quand même. non non non non non. ban fi non aw ma jour fixe ah. d' accord j'ai pas de jour fixe mais tamit du ma fi ñëw chaque jour. d' accord si semaine bi trois fois. ma kii mhm. l'essentiel mën naa toog benn jour mu am ëpp deux mille cinq cent par exemple mhm. mën naa toog semaine boobu sax du ma ñëw doo ñëw am naa lu may fejee sama yenn euh, soucis yu ndaw yi d'accord mais depuis combien de temps nga nga nga commencé Madiel bi donc bon c'est un peu kii mën naa ne depuis bu ma commencé jàng sax parce que bu may nekk université sax yenn saa surtout balaa ma doon am bourse mhm. yenn saa ma ñëw toog fii nii lijjante passe wala toog yelwaan ñu jox la paas ndiga ticket waaw d' accord mais bi nga doon jàng amul am na instant yoo amul woon bourse waaw parce que première année bi aw ma woon bourse ma defe ne ñu ne étudiant handicapé yi normalement est ce que am nga reconnaissance bi non yor ma carte euh, handicapé waaw lu tax doo ko lijjanti aussi bon loolu peut être la de ma part mais aw ma ko moom mais boy il faut être conséquent yow yaa ngi bëgg a jàngale ba pare déjà tu confesses une négligence ba booy jàngale lii ngay nar a jàngal say étudiants say élèves. non ça c'est pas c'est autre chose. la rigueur ça existe quand d'accord donc depuis boobu mais léegi de manière intense depuis combien de temps nga commencé nga ngay ngay ma jël. donc depuis que j'ai arrêté les cours. kër gi nga dëkk. da nga fay fay loyer aussi. juste waaw ah booy c'est pas ça. léegi ce que je vais faire malgré que ni c'est pas ma mission puisque man ma simple mission c'est de rendre compte ce que je vais faire dans un premier temps je vais passer des coups de fil mhm. voir si on peut éventuellement envisager ne serait-ce qu'une formation première des trucs deuxièmement ñu xool bu fekkee ni am nañu issue de formation ñu xool ndax euh, dans ce cadre là mën nañu xool nan nga bañ a màjjale man li ma bëgg mooy nga bañ a toog comme jàng nga xanaa waa les autorités ne vont pas, en tout cas si voyaient cette situation, ils ne vont pas la laisser perdurer. On va essayer de voir euh, si réellement tu es parce qu'il ne faut pas attendre que le ciel euh, fasse tomber euh, le miel pour en profiter simplement. Oh. comme nu ma la daal man maa ngi jéem même fii nii bu ñu taxaw fii nii. Mhm. déposé naa foofu pour liggéey maa ngi ak sama mais retour daal mooy dee déposé nga ci mairie bi ah, mairie bi sax déposé mairie Ziguinchor su ma tikkee mu ngi nii. depuis combien de temps nga depuis presque léegi mu deux mois. deux mois je suis toujours à l'écoute. ok léegi on va essayer par le biais peut-être de la 3FPT dinaa jéem a xool seen correspondant local bi ndax euh, on va essayer de l'appeler et de lui la question ok. ok faire une petite pause d'ailleurs moom moo may woote ah, mooy woote nii allo waaw alors euh, donc euh, li ñu naan ñaan bu tombeek am il se trouve que 3FPT un partenaire de l'émission Young 3FPT nous accompagne en tout cas sur quelques numéros et euh, li yàllay def le cas de ce jeune homme-là me paraît relever de d'action bande donc j'ai j'ai vu ce cas le cas euh, dama ko fekk dans les rues de Ziguinchor muy yelwa l'émission Yandou essaye de déconstruire la représentation qui est faite de la personne handicapée au Sénégal. loo ci xalaat est-ce que 3FPT c'est de sa mission que d'essayer de trouver une solution pour ce genre de cas. mais bien sûr Abou. parce que damay kontaan déjà ci li mu wax ni moom langue étrangère appliquée la def. Mbadou puisque man également j'ai fait langue étrangère <laughs> appliquée. donc euh, alors par rapport à son cas. nekk une personne handicapée. waaw PAFPT day accompagner dafa am programme bu ñuy wax programme de euh, d' accompagnement des couches vulnérables. d'accord te ci programme boobu on accompagne les personnes vivant avec handicap ouais. à travers maintenant des formations techniques ouais. donc tey ci bon de formation yi nga xamante ni moom la ñuy joxe moom bu fekkente ni identifié na un métier boo xamante ni bëgg na ko def 3FPT mën na ko accompagner may ko bon de formation. mu mën a jàll non dama bëgg dina ko accompagner. dina ko accompagner dina ko accompagner. parce que c'est pas normal qu'au Sénégal de qu'un jeune homme qui soit diplômé en lettres, en langue étrangère appliquée, mmh. puisse se trouver dans les rues de Ziguinchor à faire la manche. Mais bien sûr, et je suis sensible également à ce cas-là. Comme li nga wax, je ah. confirme 3FPT dina ko accompagner. waaw dans la mesure où. Mhm. dafa am tey benn concept boo xamante ni moom la ñuy développer ñu koy wax si laa bokk. waaw ñëpp ci la ñu bokk. qui plus est nag. Ah. personnes handicapées yi. xamante ne ci programme boobu lañ bokk. ok lu war a mën a nekk la. waaw mën nañ ko accompagner. à mhm. l'identification de ses besoins en formation. mu xam exactement ban métier la bëgg def ak lan la war a mën a def. une formation technique. waaw te li ci dàq mooy au-delà de la formation. Ah. mën nañ ko def mën nañu def une mise en relation. boole ko ak structure yi nga xamante ni. Ah. mën nañ ko accompagner derrière la formation. waaw bu paree. Euh, emploi salarial la bëgg def lu mën a nekk la à travers les pôles emploi bu fekkente ni auto emploi la ñu boole ko ak lu mel ni ay DER wala yeneen structure de l'État yi nga xamante ni dañuy financer les projets d'accord tey moom bu définiree spécifiquement ban formation la bëgg def maa ngi koy laaj léegi mu ne ma comme moom Léa la nekk et que option tourisme la defoon donc tey au niveau de Ziguinchor par exemple am nañ fi deux programmes yoo xamante ni mhm. yu war a mën a méngoo ak li mu bëgg la benn ay certificat professionnel de spécialisation lañ ay formation de courte durée. Mhm. yu ndaw ci mhm. diggante six mois. ñu former la nga am xam-xam soit moom lu méngoo ak ak li mu bëgg. en conception de produits touristiques. wala également en guide et interprète touristique. da nga ci bëgg rajouter yow li muy wax ni est-ce que ànd nag euh, say aspiration par exemple. waaw ànd naa ak sama aspiration d'autant plus que lu ma jàng la mën nañu mën nañu jéem a explorer piste bi par exemple. ah waaw d'accord léegi on va compter sur toi pour que tu. relève le challenge. Euh, juste kontaan également ci ah. peut-être mise en relation bi nga xamante ni moom nga def abu ah. di fàttali ni rek ñun programme boobu on est en fond. Ah. on est fond là-dessus. ci programme de couches vulnérables yi. ren ren rek ci bi on a hmm. accompagné au niveau de la zone sud. plus de 300 personnes vivant avec handicap. comme ni ñu koy waxee si la bokk boobu moom ci la bokk doom. <laughs> <laughs> malgré le fait que yàgguma ko parce que émission bi peut moo ko waral mais bon. recette bi ñaata la nga may wax wax. Ah? non recette bi moom lu ma naroon lu ma am tey moo ëpp lu ma naroon am chaque jour parce que bon le fait d'être vu et entendu peut-être bon. yow semaine bi di nga am 10 000. waaw ça dépend yenn saa yi mën na ko ëpp comme mën na ko bañ a mot mois bi à peu près ñaata waaye. mois bi bon 30 35. d'accord sa interaction xam nga xale bu góor nga. Ah. Euh, te xale bu góor boo tolloo ci fi nga toll hormones yi day wax. Mhm. comment ça se passe avec les tout ça. bon côté boobu moom man jiw ma côté boobu parce que j'ai un peu daa am benn regard bu nga xam ne daal bëgguma fa kiyaat ñoom parce que sama situation peut-être mooy tax. situation handicap bi wala situation de pauvreté. ànd ak ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar nan nga ko dundee bi nga nekkee xale bi mu ñëwee. bon bu muy soog a ñëw moom boo xaw ma dara boobu moom c'était pas quelque chose de naan métti woon na parce que xaw ma bon dëgg la ay jékki-jékki ñàkk sa tànk bon c'était pas facile mais bon. doon ma métti ba jamono bu may gën a màgg di gën a ràññi di bëgg a def yenn yi doo ko mën a def. mais di nga mais attends depuis yow yaa ngi ne yaa ngi am 28 ans tey. nga xanaa ci xale yi jigéen ñi di nga. Ah, ah, depuis boobu yaa ngi jéem am ay interaction ak ñoom par exemple. non non non pour parler euh, ah, bu baaxee incha allah dina ñëw. en fait li ma laaj mooy est-ce que pare nga tey. boo amee par exemple euh, solution nga nga arrêté yelwaan bi. mais c'est automatiquement. pare nga pour arrêter yelwaan bi automatiquement. donc écoute je te propose deux choses nga ne 35000 ngay am par weer. Mhm. je vais te proposer tant yaa ngi wut solution en tout cas on va se donner six mois. Mhm. yaa ngi wut solution. Mhm. parce que dinañ la suivre. je vais demander à Sénégal India de te pourvoir au moins cinquante mille par mois pendant les six mois mais à condition que nga bàyyi yelwaan yi et à condition que ma am la certitude que ni mhm. réellement yaa ngi wut solution d'insertion mën nañ challenge loolu mën nañ ko challenge d'accord on va te donner tey mii sax parce que jotaguma gars yi mais je vais essayer de te dégoter mille par mois si j'arrive mhm. nee nga trente cinq mille ngay am par weer bi on va de au moins cinquante mille francs mois mhm. la part de Sénégal India Foundation à condition que nga bàyyi yelwaan bi mhm. et condition aussi que ngay wut solution d'insertion yoo xam ne ñun dinañu ci gunge wala ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ci télé bi mhm. à travers la télévision peut-être qu'ils peuvent être sensibilisés par ton cas et essayer de te proposer une solution ñi leen di remercier encore ci seen suivi ci suñu émission yërndu bi nga xam ne euh, ñu tàyyi di gërëm suñu accompagnant yi euh, muy Sénégindia Foundation bi ma cité léegi muy léegi e fpt bi nga xam ne moom it Euh, nee na euh, émission bi euh, yaakaar na ni jar na ñu ci jàpp ba ñu tàmbalee di jàpp ñu di leen ko gërëmee di leen dig daje yeneen jamono yoo xam ne dañu leen andil yeneen reportage yu ñu jëlee un peu partout même ci ci Ziguinchor. donc li c'est cent mille francs que je t'ai dit promis euh, au nom du Sénégindia Foundation en attendant tous les autres mois euh, tu recevras cinquante tant que yelwaanuloo ci mbedd mi tant que maa ngi am la preuve que ni yaa ngi def cadre yi ñu la situé yaa ngi ci nekk di ci daan sa doole en tout cas di fexe ba am solution. bon man tam maa ngi profité à travers occasion bi di ñu di remercier ñu leen gunge muy Sunuker Dia Foundation bi ak waa 3FPT bu ngeen tudd sànq. waaw waaw di ne daal man tamit pacte bu ngeen wax nii daal dinaa ko respecté te ñaan naa yàlla daal émission bii nii am ay débouché yu positif daal.